waaye nag dina daal di signé ak clubam boobu nga xam ne nekkoon na fa mën nañu wax ne fa la tàmbale lépp depuis 1998 la fa nekkoon moom Thiago Silva bi nga xam ne jamono bi mën nañu wax sax mag la waaye nag dese na nee nañu daal ñaari ati contrat dina ko fa daal di signé contrat bu koy yóbbu ba juin 2026. kon fa mu tàmbalee woon fa lay jeexalee jële li nga xam ne mooy carrière am loolu mbir la moo xam ne mat na bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi. ki nga xam ne nag mooy Boulaye Dia l'international sénégalais moom nag ñoo ngi koy annoncé foofu la ca Lazio. gannaaw bi nga xamee ne kat moom ak Salernitana xam ngeen ci coow la ñu nekk daaw ba ren xam ngeen ne temps yëpp sax footballul ak équipe boobule parce que ñoom sax dañuy wàcc deuxième division dañuy yeggali nii rek Salernitana dañuy yeggali match yu leen dese ci série A buñ ca jógee série B la ñu jëm bu laaja nag ci yooyu jamono Lazio bëgg nañu ko jënd ngir renforcer seen ab attaque Lazio nag xam ngeen ne équipe bu baax la équipe bu am doole la ndax ren ji sax ñu ngi woon ci Ligue des champions bi waaye nag toog nañ ci jamono yi xëy na déwén amaana bu ñu amee chance mën nañu dem Ligue des champions wala Europa League ngi xeex daal ngir dellu ca jamono bi nak xam ngeen dañu am ki nga xamne ne tagat kat bu yes muy Igor Tidor waye nak ki di bulaja. mom lañu bëgg yobbu fofu le ngir renforcer li nga xamne moy mooy seen ab attaque gannaaw bi nga xamé ne kat digënté ak club bobu di Salernitana rattaxul ben yoon. ki nga xamne mom lañu wax Calvin Phillips mom nak kayiti di xibaari xam la nañu ne dina fofu la ci Manchester City. West Ham United gañu ko Abalon. ñom duñu ko jënd Calvin Phillips melna ni dal nek na ci jafe-jafe jamono yi waxee ak yéen sax dafa am li nga xam ne mooy gaañu gaañu wala ñu gis na daal xëy na West Ham la ñu gisoon ci moom wala bokk la ñu njort woon ba tax ñu àbb ko mel na ni gisuñu ko ci moom moo tax option d'achat bi moom mel na ni daal ñoom duñ ci sori dañu koy delloo daal fa mu jógee woon muy Man City léegi nag kon Man City moom mooy décider ëllëgu ki nga xam ne mooy Calvin Phillips bii nga xam ne ancien joueur Leeds United la Leeds United googu nga xam ne sax dañoo ko jaayoon kayit xibaar yi xam na nañu ne ñoom sax yitte woon nañu ko bëgg nañu mu daal di delluwaat foofule loolu nag mu ngi aju ci Manchester City bi nga xam ne jamono bi foofu la am contrat wala bu saison bi jeexee bu delloo foofu danañ daal di dégg maam lijjantu lu jëm ci mbir moomu waaye dellu moom dina ko daal di def ndax jamono yi sax footballu ndax blessure boo xam ne daal dina koy am bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar bii di The Athletic. Arsenal kayiti xibaar yi xam la nañu ne depuis 2019 jàpp 2020 ba léegi ñu ngi soog a amaat joueur boo xamante ni marqué na lu toll ci ñaar fukki bal ci benn saison Bukayo Saka la Saka am na lu toll ci 20 bi ci loolu nag nee nañu gëj na am depuis 2019 2020 ki nga xam ne moo ko joon def mooy Pierre Emerick Aubameyang bi nga xam ne jamono mu ngi foofu la ca Marseille kon ñu gis ne boobaak léegi mat na juróomi at wala mu jege ko ki nga xam ne mooy Saka moo ko defaat Arsenal nag jamono bi ñu ngi dundee yaakaar ngir gagné li nga xam ne mooy championnat bi Saka am na lu toll ci ñaar fukki bal ci li nga xam ne mooy championnat ki ñuy wax Abdes Samad Izalzouli moom nag dafa wax ne du génn équipe boobu di Real Betis gannaaw bi nga xamee ne kat am na ay football club yi koy topp foofulee ca voilà moom nag nee na moom demul fenn dafay toog foofu la nga xam ne mooy ca Real Betis ndax yéeneem kat mooy gañe fa li nga xam ne mooy ay trophée mën a na jamono bi mbir yi xaw na difficile ci moom voilà yëfi daal doxul maanaam saison bi nga xam ne mooy gën a neex ci saison dina ko daal di def ni ki déwén mun a waat naa ne li may def déwén dina wuute ak li nga xam ne gis ngeen ko ren loolu mooy li nga xam ne daal dina koy wax te moo tax décidé na ngir des foofule ca Real Betis do dem ci Arabie Saoudite bi nga xam ne jamono bii ñu ngi koy yittewoo foofule moom kii di Abdesamad Issaoui bi nga xam ne moom joueur waa Maroc la Keita Balde moom dañoo gis ne daal moom daa am jafe-jafe ak équipe am boobu nga xam ne mooy espagnol moom nag dañ ko faa able Spartak Moscou ñoo ko daal di able foofu la ca espagnol gi nga xam ne ca Barcelone la nekk waaye dañoo gis ne daal moom bu mu fa ñëwee ba léegi daal marqué but defu ko saison baa nga ñëw jeex si moom kayiti xibaar bi sax li mu xamle mooy ba mu gëjee marqué ak léegi ci at lay toll wala ñetti fan a at ndax bu ñu xoolee ne nañu la 7 juin la woon la 7 mai le 7 mai nag daanaka dellu si na loolu booy xool daanaka atum yàlla la boo xamante ne marqué wut ab bit bit ba nga xam ne moom la mujjoon marqué mu ngi ko marqué woon ci clubam boobu di Spartak boobu ba léegi dugalaatut bi ñu ko appelé foofu nga xamante ne mooy ci espagnol ba léegi benn passe décisif képp la daal di def ci coupe droit la woon ñu gis na nag moom titulaire sax xañ ne li mu koy def bariwul voilà waaye nag danay faral di football ñaari yoon daal la de titulaire ci championnat waaye nag benn yoon ci li nga xam ne mooy coupe du roi ñu gis na nag li nga xam ne moo ak yeneen jongante yëpp taxul mu mën a def lenn te nag nekkoon na joueur bu ñu ràññee woon ci ay jamono yéen a ngi koy fàttaliku ci saison 2016 2017 ci 34 match yu mu joué woon ak Lazio de Rome marqué woon na lu toll ci 16 buts moom ki nga xam ne mooy Keita Baldé nekkoon loo xamante ni nag solo la taxoon sax club yu bari doon ko topp ci jamono yooyu bu ñu bàyyi xel jaar na ci fi nga xam ne mooy AS Monaco jaar na Inter de Milan Cagliari ba ci Sampdoria Italie moom bëri na club bi mu fa football jamono bi nag mu ngi foofu la nga xamante ni mooy ci Espagnol de Barcelone ñu jàppoon ne xañ na foofu la lépp di jubbante ko waaye daal mel na ni jafe-jafe dafa dolleeku ndax marqué ab but dafa ko fa te saison baa ngi ñëw jeex si kon mu mel ni daal mu ngi ci jafe-jafe moom kii di Keita Baldé ëllëgam nag fi mu ne nii moom lënt na mu nekk koo xam ne nag am lu toll ci 40 sélection te ku ñu ràññale woon ku sénégalais amoon ci moom yaakaar ndax njëlbeen gi moom doon na wane xarañte bu baax a baax ak détermination gu mat sëkk waaye daal jafe-jafe ya may dund ci këlëbam tax na sax ba wootuñ ko moom kii di Diao Baldé kon loolu mooy xibaar bi saison bi ba mu jeex marqué benn bit benn passe décisive la daal di def kon li leer mooy dina delluwaat foofu mu jógee woon di Spartak Moscou li loolu la ñu gën a njort bokk ndax espagnol mel na ni yittewuñu ko ndax li muy football manché wul ñetti yoon képp la ko dal di def moom kii di Keita Baldé gars yi loolu mooy li fi gënoon fes wéy leen topp Sen Sports